Mais pour ce qui est sûr, mmh. c'est en tout cas, mmh. on est à 80 pour cent. Ah. Euh, on avoisine les les les les 80 pour cent donc li am solo ba am solo mooy dañuy jàpp ne c'est une moyenne de 56, 55 à à à 60 pour cent qu'on félicitations monsieur monsieur le maire félicitations merci jërëjëf waaw. <laughs> donc pour dire que voilà. je suis à voilà dehors. Mm-hmm. je suis dehors. di jubilé nga ngeen baal ma nag parce que mbedd bi yëpp a génn ci li ci di jubilé. waaw donc beneen sentiment bi mooy macha allah. Uh-huh. beneen sentiment bi mooy. Euh, peuple bi wane na maturité am. Mm-hmm. peuple bi wane na aussi souveraineté am. Mm-hmm. alhamdulilah rabil alamin euh, on a tout fait. on a tout donné au peuple. Euh, lu ne daj nañ ko lu nekk dund nañ ko sóor mhm. nañ ñu tëj nañ ñu gaaj mhm. lu ne def nañ ko mhm. tey jii lii moo ci waroon a topp te c'était le prix à payer jaroon na ko suñ ko waroon defaat defaat ko donc Sénégal enfin comprendre nañu ne loxo bi ak doole bi peuple bi moo ko yore incha allah yàlla na ci euh, nag yaakaar bu bañ a tas topp parce que loolu la ñu bëgg changer carrément le le système ici au niveau Sénégal pour que Sénégal enfin dem ci développement bi ñu bëgg. d' accord maman yaa ngi nekk ci mbedd yi di jubilé mais ci campagne naka ngeen doon dundee ak euh, li nga xamante ni mooy liñ leen doon teg ndax gis nañu ne. ci campagne bi noo leen ko doon dundee parce que gis nañu yenn seen i caravane dañ leen doon attaqué laataa ñuy ñëwaat ci li nga xamante ni mooy. waaw loolu mooy njëg bi rek mooy njëg bi nettali nag wax dëgg yàlla ce a subi. Mhm. ils nous ont deux fois. ay jigéen ay jigéen waroon toog seen kër ay jigéen waroon a choisir fi gën a yomb ndax proposé nañ lu nekk mhm. ñu ne déedéet ñun dañuy xeex pour Sénégal jëm ci kanam mhm. jël sunu moyen sunu propre moyen mhm. dem ne dañuy caravane def la caravane des Linguères def autant de départements que possible pour wax ak sunu mbokku jigéen yi jaay leen le projet de la coalition Diomaye président jigéen ñëpp adhéré ci ñoom à Saint-Louis ils nous ont attaqué mm-hmm. à Thiadiaye ils nous ont attaqué mm-hmm. ak fanati encore c'est-à-dire euh, euh, vraiment li mu ñu coûté mënuñu ko wax mënuñu ko wax waaye nag sant yàlla sant yàlla garde corps bi ñu gaañ ci ñun li ngi nii nekk ci convoi bi ñu yore ni pour dire que yëguñu tax gaañ-gaañ yi mm-hmm. parce que réew mi jar na ko sénégalais yi jar nañ ko dañu bëgg Sénégal am beneen xar kanam incha allahu rabbi yàlla na ko yàlla dogal. amiin mais maman euh, ñi doon wax ni Bassirou Diomaye Faye euh, mënul nekk li nga xamante ne mooy njiitu réew mi tey loolu di tontu. mënul nekk. njiitu réew mi parce que ay compétence am mayuñu ko mu jiite réew mi tey loolu di tontu. ah xanaa bu ñu amee lu ñuy wax kañ leneen la mais bu dee compétence. Mhm. ah xanaa laajtewuñu ci moom. man di ma mën a wax ci compétence am bu avéré. Mhm. mooy li turam di wuy joo. di wuyoo muy euh, Bassirou mhm. le clairvoyant. c'est un homme xam-xam bi set na xam-xam bi bari na xam-xam bi sell na mais surtout valeur yi nga xam ne nag man ci ànd bi ma ànd ak moom depuis dix ans mën naa ko wax mooy nit ku baax mm. nit ku am yar mais nit ku maandu kenn du wax ak turu jàmbur ci kanamam mm-hmm. boo waxee mu ne la bàyyil ba ku ñëw waxal boppam kon loo xamante ne la man maa ko dund ak moom mm-hmm. gis ko ci yërmande aussi mm-hmm. gis ko ci yar gis ko yoo xamante ne namm nañ ko aussi ci président parce que président da ngay maandu lépp mënoo koo xam mhm. waaye ku ñëw wax la nga xam li nga war a def lépp ko ci li nga teg sa bët ndax àdduna dafa doy waar kon man daal dama naan xale lañu ñu wax gisuma xale ci moom ndax xale bu rombee euh, ñeent fukki at am ñaari jabar mhm. yor njabootam yor ay waajuram yore poste de responsabilité yuñ ko dénk mhm. kooku ko xale en tout cas ay loxoom set nañu daal moo ma gënal nag ñi ñu naan ay mag lañu te li ñu fi nekkee xam ko ba tey ji askan wi dal seen kaw. kon man xale bu loxoom set leneen. macha allah donc liñ doon wax dañ ko xamul woon rek. Mhm. waaye incha allah dinañu gis lu bees ci Sénégal. maman tey bu ñu doon wax ci lu bees lan nga jàpp ne war nañ ko mën a changer parce que bu dee justice yow gis nañu luñ la tegoon jot nañ la jàpp teg la bërëb ba sax sa wér yaram moo tax ñu génn la. alors tey bu ñu nee woon dañ ngay changer tey ji lan nga jàpp ne lañ war a gën a mën a focus ci changer ko fii ci Sénégal. changement bi ma bi ma yaakaar. Mhm. te xam naa ne dina am. mooy justice dina am justice dina am suñu constitution bi ñu daan jël di ko fowe di ko daggat di ko salfaañe di di ko wàññi di ko toroxal loolu nekk na loo xamante ni lu metti la loolu nekk na loo xamante ni day delloo réew ginnaaw démocratie dina dellu si waat constitution Sénégal dina dellu si waat ñu defaraat ko na mu waree xam naa ni avec Diomaye on aura une justice équitable on aura une justice te loolu mooy jafe ñaan ci réew bu amee démocratie ah li ci des mën na yomb mhm. parce que développement comme sa bopp la te Diomaye foog naa ku ko déglu fan yi découvrir la personnalité di nga xam ne li ku gëm boppam la te loolu la ñu soxla Sénégal comme gëm suñu bopp développement endogène bu ñu ko amee duñu wàlli yaan ñu dem feneen di fa wuti dara danañu développer suñu agriculture sunu industrie mhm. sunu lépp lu nga xamante ne mën nañ cee jëlee njariñ mhm. ci kàttanu yàlla donc ñu ngi koy xaar te yaakaar nañ ko bu baax a baax. jërëjëf kon tey kontaan ngeen yàlla bu yaakaar tas waaw. tey moom kontaan ngeen. <laughs> waaw kon torop torop torop torop. merci beaucoup tey moom dama kontaan. ndax man sama combat. Mhm. Euh, taxawaayu jigéen la. sama combat moo ma tax a dugg ci politique. dama mos a xeex pour développement jigéen autonomisation jigéen. tey jii am naa moyen yu ma ko xeexee. parce que loolu laay xaar ci président Bassirou Diomaye Faye. moom laa doon xaar ci Ousmane Sonko tey yàlla dogal na Diomaye hmm. moom la ñuy àndal liggéey ci bu soobee yàlla parce que nag jigéen ñi ñoo yore réew te la très grande majorité d'une population kon tey ji il faut ñu jox leen li moom muy une meilleure considération et un repositionnement sur le plan social et sur le plan économique jërëjëf merci beaucoup maman merci beaucoup maman Marie jërëjëf Abdou Khadir nga ne Aly Ngouille Ndiaye tey lan la daal di posté wala lu xew ci moom. waaw Aly Ngouille Ndiaye nekk candidat à la présidentielle de ce soir. Euh, du 24 <laughs> euh, mars 2024 moom daal dinay félicité la coalition Diomaye président ci victoire bi ñu am ci commune bu Linguère euh, xam nga jamono ji moom Aly Ngouille Ndiaye moo nekk maire foofe ca commune bu Linguère nekkoon itam ki nga xam ni moo di candidat à l'élection présidentielle nee na moom daal mi ngi remercier militant yi nga xam ni rek ñoom ñoo àndoon ak moom ak ay sympathisants di ko soutenir depuis bi mu engagé woo ci politique léegi nee na itam mu ngi leen di euh, euh, invité ñu boole seen i doole ngir ëllëg daal di itam sargal leen tatagal leen ci liggéey bi nga xam ni rek daal dinañ koy def te itam ñu continuer ba tey di gëm ci li nga xam ni moo division commune euh, bu Linguère mooy Aly Ngouille Ndiaye dafa daal di xam ne rek ni j'adresse mes félicitations à la coalition Diomaye Président pour sa victoire dans la commune de Linguère En tant que maire et candidat à cette élection présidentielle, je remercie tous mes militants et sympathisants pour leur soutien et leur engagement indéfectible. Je vous invite à rester unis et optimistes pour l'avenir. Bravo à chacun d'entre vous pour le travail acharné et continuons à croire à, à notre vision euh, commune Aly Ngouille Ndiaye bi nekkoon ministre de l'intérieur ci jamonoy Macky Sall Aly Ngouille Ndiaye euh, bi euh, nekk candidat à l'élection présidentielle ci atum 2024 Aly Ngouille Ndiaye bi nekk le maire de la commune de Linguère Aly Ngouille Ndiaye bi jógee ci Macky Sall dem ci kujjëg politique gi Aly Ngouille Ndiaye boobu nga xam ni itam fédéré woon na ay forces ak bépp kujjëg politique ñuy xeex xeex li nga xam ni moo di la troisième candidature du président Macky Sall tey moom Aly Ngouille Ndiaye boobu moo wëlbatiku am défaite ci kanam Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi nga xam ni moo dëkk foofee ca Njagañaaw gañe ko gañe métti foofee ca dëkkam boobee di Linguère mu accepté ko ak fair play remercier la coalition bi nga xam ni moo porte woon la candidature de Bassirou Diomaye Faye di la coalition Diomaye président 2024 te Aminata Touré jóge itam ci pouvoir bi dem fekki ko te kii di ay dem Mbodj nekkoon ci ak nguur ci jamono Abdoulaye Wade dem fekk ko capitaine Touré dem fekki ko Karim Wade dem fekki ko docteur Abdourahmane Dieye